Wuli ñu ngi lay nuyu di la gërëm fii ci Grand Théâtre tey ñu fekk la fii ci Gambie euh, est-ce que mën nga ñëw ci lu tax nga nga ñëw fii. asalaamaaleykum euh, waa Grand Théâtre maa leen di nuyu bu baax a baax Babacar sama xarit sama supporter bu mag boobu waaw yaa baax yaa gore. noonu liiru jàpp. waaw noonu liiru jaan di gërëm Talla Ndiaye xaytu liiru jaan xam nga lii rek Babacar ñu ngi nii tey Gambie ci hôtel bi nga xam ne mooy xawsu waaju xawsu fa su weex nga xam ne sunu jigéen boobu moo moom muy Khadija Sow Khadija Sow di jigéen bu mën góor ndeysaan xam nga nekk sunu xarit nekk sunu supporter nekk Suisse te nga xam ne man maa ngi préparé tournée bu mag Suisse mu ñëw bopp Gambie xadi xadi sow xadi saa sow ubbil lii Gambie nga xam ne ñun suñu ñëwee Gambie dunu fay lekk duñu fay naan néeg yi c'est climatisé néeg yu rafet vraiment xadi saa si di sama xarit sow bëgg ma lool xadi sow mooy yaayu yonent bi xadi saa sow nit ko baax la Gamien boobu foog ñu gërëm ko parce que lii mënu defal tey ñu am signature contrat mu ne ma wulli ñëwal dal sama hôtel man ne ko nag li ñu dal amul hôtel mu ne ak moom nga ñëw. Ah, kon dimbali si noo ko si fanaan. li ñu jaar man maa ko dimbali Xadija man la xam mu ne ma wulli sa signature bi ñëwal dal sama otel bi doo fay dërëb doo fay naan te hôtel bi moo dax Gambie. comprends nga man na ko nag dimbali ma liiru parce que liiru bu bu ma ko dimbaliwul ci ci day wuti ay néeg luy ji fa mun na ànd rek moom waa li neexul teraanga waaw maa ngi ni xëy naa sangu julli toog di wax moom ngay nelaw. am néeg bee nekk nee si ginnaaw. la tala. <laughs> ba léegi yeewoo ko bi mu nga nee. <laughs> xa yéen mu nga xam nga ne kii entraîné wul géej gaa ngi nii cinq heures laa xëy dem ci géej gi jóge géej gi ñëw juli jàpp yow bi may julli gis nga ma ñëw solu toog di waxtaan ak yéen il est neuf heures et demi yiw jaar yeewoogul waaye yéen kuy nelaw Gambie Sénégal yaa tax wax kii moo tax day nax gars yi naan di entraîné fan la billaahi mu nga ne di nelaw neg ba ngeen. mais est du xelam moo dar rek. waaw Babacar kuy liggéey ak kuy weddi du fayu liggéey ak kuy nelaw bu dee ki liggéey mooy feeku xelam waaw bu dee xelam moo daal mais nit say supporter aussi man fii mu toll amatuma droit erreur ndax ñi ma bëgg moo tax moo tax may entraîné am Gambie amul Sénégal saa yu ma xëyee. liggéey entraîneur suba tel julli ñaan ci yalla mais babaka kuy xëy di julli ak ku julli wut nak vraiment <laughs> xar bu xëyee sax julli wut du gont man da dog la xey mu ngi mu xëy du jullit te day gont du d'accord euh, euh, Wouly gën jigé ba Sénégal ñëw gam fi def fi demb vraiment spectacle bu rëy rëy loo xam ne ko gis musuma ko gis Gambien yëpp génn coow li bari. vraiment mu nekk démb da nga yaakaar ne Gambie da nga naan fi fii àdduna bu tukki la loolu na la la def. waaw rëy sunu man parce que euh, Babacar damay sant yàlla Gambie daaw dama fi ñëw daan fi seen mbër bu dàq bëri ci seen bëri yi Sa Thiès dem boo xoolee si signature bi ñu bëri ñu ëpp sax man lañu ñu faral li jaar kenn xamu ko fi léegi heureusement daa mujj di làqu ci Balla Gaye de daal man maay mag i Balla Gaye 2 xam nga maanaam gis nit fexe nekk gars yi di roy ci yow mu moo dàq roy ci Balla Gaye grand ah, na moom ak Balla Gaye man liiru ma wa ku mag bala mag Lac de Guiers mag Alioune mag guy gi mag Elton ci ci géejuwaay waaye mën na dimbali nag nit ñi nga bay lam nag nelaw yi li muy def ni ma ma wax ci moom nelaw ba di seer boo njaboot la billaahi bu ma ko jàppee ba bàyyi ko ma nga tam jaan nii billaahi bu ma ko jàppee ba bàyyi ko xam nga xaarim bay naag moom ko kat gi bay naag moom dóoru ko waaye bu ma ko jàppee ko man xele bu soxor la dama soxor Babacar dinaa ko wulee wule bu bu bu dëggatee bu fu nee wuu rek mu daaw euh, mais dem nag démb démb nag euh, wuli na weere parce que euh, démb spectacle bi naa xam nga mbëri Gambien yi ñëpp génn euh, bàyyi ma njoon ak xoyaa xoyaa la nest xoyantaan mbër yëpp nekk fa. ja affaire bi nice daal spectacle bi nice mais yow yàq-yàq dégg naa yaa nekk suuf di ko ruube di ko saaga ci suuf quoi. non non barke Seydina Mohamed. billahi walay talaay. saaguma saaguma ko ah, barke Mohamed xalaatuma ko parce que aussi. Euh, man signature contrat mun naa neexal mais amul benn mbër bu mës a wax wu li dema saaga. barke si naam mais yow lan nga ko wax ba mu jugee foofu parce que gis nañ gis nañ ci jamaïcain sax di nga jéem a jàpp di nga jéem a arrangé mais moom jugee na foofu ñoo fekk lu ko nar a xeex ak yow foofu. ñaar yoon xaw ma ñetti yoon. liiru du xeex liiru liiru yow xam nga lay def dof la xam nga xam nga ni aussi ku wérul dama ko da nga am magat kàmmale meew loolu loolu loolu kay loolu kay vraiment ay waaw ma ne ko yaa nelaw da ngaa magat ñëwoon ma may la meew nga naan mu mu mu ne ma da ngaa réew xam nga aussi vraiment jar xam nga aussi ma koy comprendre parce que bu dee xam nga li mu boole dafa bëri nekk mag bu pare wérul yaa koy comprendre mais barke Seydina Mohamed man duma sàgg bi duma adam kenn mësuma gis ma ma ci làmb mais nag dinaa kaf dinaa neexal nag naa la tooñ aussi parce que loolu aussi ci lam la bokk tooñ provoqué neexal mais nag du ma parce que dama respecté sama waajur aussi du ma saaga waajur mosuma am ama nit signé ci contrat di ko saaga mais nag dinaa ko wax moom lu ma neex ay dinaa la wulli dinaa def nanga mais saaga mais liiru jaan dem billaay walaay taalaay saagawuma ko dama ko rek da ngaa magat ñoo may la meew te magat la sama moom mu ngi nii ba léegi <laughs> yeewoogul kii man jaaxal na ma. Euh, Wuli beneen mbir bi mooy problème dina am ci làmb ji parce que démb Gambie nee nañ ko baree fii loolu Gambie wax nañ ko baree fii yéen doo leen génn Gambie waaw Sénégal nag léegi boobaa bu ñu ko waree bëree foofu lan mooy xew noo leen def. waaw Jamaïcain ñu ngi waxtaan moom aussi sama rak la dama koy man man dama bëgg di may loxo parce que Jamaïcain xel la Jamaïcain am na sa ñaar fukki at di góorgóorlu di def yi man fii joxuma ñaar fii ah, fayuma dërëm mais bi ma ne nan dem da participer parce que parce que nit aussi buy buy jiital xaalis jiitalal ngor ak jàppale doomu aadama aussi expliqué na ma quoi ne ma gamins yi ci boppam ñoo bëgg nga bëre fii te it yaa liiru jaan bu dee taxawoon na su ma sañoon ngeen bëre Gambie bëre Sénégal ma ne ko amul benn problème yow sama rak nga parce que man chaque jour maa ne wuli wuli waat bu dee nag man maay wuli wuli waat dama koy wuli Gambie wuli ko Dakar d' naa man kay d' accord kii dafa war dem toogi kii bu bu paree ci man dootul bu ne wuli mu daaw wuli Gambie wuli ko Dakar dama koy wuli Gambie wuli waat ko Dakar man moom pay naa combat bi bu yàqoo ci lu yàlla yàqoo. bak si maman man pay naa parce que nit supporters yi ma xoolal bi hôtel te nu jox la ko nekk gambi doo fay dara kon bu mu ma. Gambie soxlaa ma ma bëre Dakar ah Gambie damay ñëw bëre mun naa bëre Gambie bëre Dakar wuli ko gambi wuli ko Dakar lii neexul waaw wuli wuli wax ngay préparé benn tournée européenne bu mag a mag boo xam ne coow li bari na ñu ñoom Mandiaye Seck ak ñoom Pendo gisee ak yu bari daanaka ñu Sénégal kenn des euh, tournée boobu naka nga def euh, naka naka la demee cest à lu ko waral. Babacar loolu sànniyal la. parce que am na mbër yu bëri yu yu dem Europe ñooy dem wutale seen bopp visa dem dagal seen bopp billet dem ñu moodu moodu yi ñuy dem di ñëwaat man ay at a ngi ku ne topp ma wuli dama Europe dama États-Unis man leen lu jot yoom parce que man aussi dama foog nag sama réew dara jaruma may dem di def immigration clandestin wala may daw sama réew di dégg nga dem wut visa dem liggéey wax dëggu si la parce que man tey Sénégal li ma fi am wax dëggu si yàlla moo ma daqal lu nag même boo fi amul xaalis am nga fi ay nit ay kilifa ñu ñu bëgg la comprendre nga wax dëggu si yàlla loolu loolu la taxoon man ay deux cent trois cent ku ne may topp wala dama États-Unis dama Italie man leen noonu fii laay toog parce que fii laa dëkk te toog tey ñu ma doon parce que balam bi naqaree ñu naan wuli tukki tukki tukki tukki su ma tukki woon tey lii nii yëpp dama ko am moo tax gëm yaa rek a wóor bi aussi sant yàlla laa wax parce que man bëgg naa dem Europe pour mu leer mais bëgguma dem Europe di di Modou Modou wax dëggu si yàlla parce que aussi kilifa laa tey damaa bëgg toog ci dëkk bi liggéey sama dëkk même bu ma béyee la lam tey mun naa fee ubbi leneen ci Sénégal mais nag tournée européenne bi aussi neex na ma trop parce que nga dem tey bu ay sénégalais yu ne Allemagne muy xalifa laa ci nuyu xalifa promoteur bi ne Allemagne ay ñoom Pape Torino Ndaama Torino ay waa Suisse waa Paris la France ñëpp contacter les promoteurs nee dañoo bëgg wuli ñëw fii. bokk ci tournée européenne bi waa lii neexul mosuma dem Europe ñuy def tournée européenne bu mag bii Mandiaye set ci la bokk daam seen médecin seen nga xam ne moo xew Pendo gisee liiru jaan Mestafula maa ngi tam jaan nii mën na ko yóbbu Europe parce que aussi lii lépp sa yàlla parce que bi ma gars yi kon. léegi wulli yow est ce bu yàggee doo ko tooñ nga indi ko Gambie héberger ko bëgg ko fee wulli yóbbu ko Sénégal bëgg kaa wulli bëgg kaa yóbbu bitim la wulli ko da ngaa bëgg yàq deram bi xanaa. xam nga maanaam da koy dimbali parce que nit aussi yàlla sax dafa bëgg dimbali bi ma gars yi ma tournée européenne dama leen ne ci pourquoi pas ñu ñëw parce que aussi Europe man képp mën naa faa dem soo mais Europe dañoo soo maak liiru jaan te nag dem fii gis nga Gambie ñun ko. tàngale te lii ndaw la billaahi bu ma demee Allemagne dem Italie Rome Italie Napoli Italie Torino dem Paris la France dem Suisse am maag lii lu ñëpp bay àddina naa def soo bu garaaw a garaaw. tournée bi kañ lay commencé. novembre lay commencé ak Allemagne ak Xalifa bu ñu fa jógee dem Italie Rome Italie Torino Italie Napoli bu ñu fa jógee dem Paris la France ak Suisse. may wax sama supporters yi nekk si jege diaspora bi ñëpp ku ma bëgg na gis nañu ñëw ci tournée bi ñu gis ma ñu photo ñu waxtaan ñu def soo parce que fête la quoi soo la dinaa animé dinaa animé ba mu neex dinaa fekk ba mu neex lépp loo mën pour neexal ko naa ko neex parce que damay ànd ak Lirou Diane te bëgguma Lirou Diane mën ma fa dama ko bëgg gañe fépp dama ko bëgg gañe ci wax dañ ko ci fecc dak ko solo liu janda wa europe yep ma len di wo vraiment wa allemagne berlin wa italie rome italie napoli torino paris suisse senef ne ñep gën tuna européenne bi billahi tiaxano mako tuna bi babagar tiaxano mako parce que ma ngi doga gën europe dama ko fogg de dama fogg li de wa italie dama ko fogg de waa Allemagne damaa fonk tournée bii waa Italie Rome damaa fonk bii bi Italie Napoli damaa fonk tournée bi waa Italie Torino damaa fonk tournée bi laa wax waa Paris damaa fonk tournée bi waa Suisse gën leen dama ko fonk parce que dinaa def soobu bu garaaw garaaw garaaw garaaw may soob Dakar boo ñëpp bëgg ma ci dinaa ko yokk ci diaspora yi parce que aussi diaspora bi dañ ñuy seetaan kon bu boo ma su ma demee ci ñoom dinaa def soo bu garaaw garaaw garaaw. di ñaan nag yàlla mi nga xam ne mooy mooy ñuy dimbali yàlla nañu yàlla dimbali tëggaanu ci tuna bi loxo ba lépp leer nañ lépp sotti ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jaajëf di gërëm nag aussi ngeen baal ma samay xarit comme waa diaspora bi laay jëkke parce que foofu laa jëm ñoom Moustapha Diouf sama mag nañu gën Mbon Fall. Torino Samat Thiam El Capo yéen ñëpp gën leen di dem Espagne aussi di gërëm ñoom Mamita Kara Bobo Diop borom Pire Sañaxoor Bobo Diop borom Pire Grand Lamine restaurant Dakar bi ne Espagne Mbay Sam Sokono stress xam nga di di gërëm aussi waa dakaar ñu may jàppale bilaay Jamil Sam damay jàppale wala sëñ Bamba Cheikh Tidiane damay jàppale Baye Sall nag mooy directeur commercial j'adore damay jàppale bu baax a baax sa kooku kooku mooy sama xarit Baye Sall Dame Diop Ngor aussi damay jàppale xam nga sama soxna aussi Taa Ndiaye moom xaritam la kon soxna si Sali Dione aussi maa ngi koy gërëm di gërëm samay doom di gërëm samay waajur di gërëm sëñ Muntaxa Mbakke moom sëñ Muntaxa mu sëñ Seex Gaynde Fatma sunu xarit la magal gaa ngi ñëw ne ko ñëpp waaj di gërëm sëñ Mamour Diagne Massila Diop maa ngi koy gërëm Cheikh Ibrahima Keita le ma booy dem ci tournée bi ñoo ma jox la mbubb boo xam ne mbubb cosaan la moo tax waa Europe di ngeen gis beneen wuli wuli buur laa yow Cheikh Ibrahima Keita nee na ma ñoo ma jox la mbubb mbubb buur bilaay dinaa toj Europe Berlin Allemagne Napoli Italie tori non Paris suivi dina toj fofu de. yaa ngi commencé jàng angal kii euh, nu mu tudd sax italien. italien amna sama ñaari magu ñu ne italien maa ngi len di wax nañu ma comme stein tout est bene comme stein tout est bene et wuli pestein au italie ma ngi jang italien. ñu jang tuti mo dum degul dara xolof rek lay lak tol bu ñu fofu la lambal la fay nekkee. bo xam ni yow ak italien yi kese koy xam. italien. one Italian twenty twenty Italy come stein bene bene liru jaan magitu jaan bene <laughs>